waaw yéeféer di wàllu yàlla kon kan mooy wàllu yàlla mbokk sénégalais boo ko laajoon tey ñaata wàllu yu nga xam <clears throat> mu ne xam naa am na wàllu bu nekk Tamba am na bu nekk Kédougou am na bu nekk Thiès am na ñu nekk nàngam ñoom lay wax yëpp ñu ngi ci biir bàmmeel <clears throat> mbokk xam leen ni kaw suuf ñaari mbooloo fi nekk awliyaullah ak awliyaau cheytaan wali yu yàlla yi ak wali yu cheytaan yi ñan mooy wali yàlla mooy almuttaquun ñi ragal yàlla ñan ñooy ragal yàlla mooy allazina amanu wa amilu salihat al imaanu saxiix wal amalu saalix ñi ragal yàlla yàlla tudd leen muttaquun mooy ñi am ngëm gu sell daa di jëf-jëf lu baax <coughs> waaye suñu borom nee ni li ëpp ci jaam yi ñoom xamuñu loolu mbokk waliyu yàlla dangay dégg ci euh, liib yoo xam ne bi ñu nañ ko ci ay téere ñu ne waliyu mooy ñi nga xam ni ak guddi àjjuma bu ne dañuy daje ca arash ñu ngi noonu wëli yu moo mel nii moo mel nii waaye déedéet mbokk wëli yu yàlla wi suul gëm yàlla gu sell ragal yàlla noonu nag la ñuy kawalente li kullin darajatun mimma amilu tey jii boo demoon armée ñoom ñëpp c'est des mais da fa fekk de caporal sergent capitaine ba baa nga yëgg ci ci général naka noonu it awliyaullah mooy ñëpp ñu gëm yàlla def lu baax doomu aadama yi nag dañ ciy gën a kawente nit mën naa kawete ëllëg mu wàcc gannaaw ëllëg mu kawe ëllëg mu wàcc ndax tànk yaa ngi def lu baax di gën a jege yàlla tànk yaa ngi def bakkaar di gën a sori yàlla mandarga ba ñuy xamee wali yu yàlla du naaw ci kaw jaww ji comme ni ko nen nit ñi di waxee mandarga ba ñuy xamee wàllu yu yàlla du dox ci kaw ndox mi waaye nañuy xamee karaama bi gën a rëy bi yàlla defal ab jaamam mooy al istiqaama mooy mu sax te la nga xam ne ni mooy yoonu diine moo tax yonent bi alayhi salaam ne suñu borom nee na ku noonoog sama waliyu man la déclaré guerre sama jaam du mu gënumaa jege li ma farataal ci moom gannaaw farata yi du des di góor góorgóorlu ci naafile ba ma bëgg ko yàlla bëgg may wàllu yàlla ah kooku luy màndargaam suñu borom mu ne man may doon noppam yi muy déggee dootul nangoo toog di déglu lu dul neex yàlla may doon bëtam yi muy xoole dootul nekk di seetaan lu dul neex yàlla may doon loxoom yi muy jëlee dootul nangoo jël benn alal lu dul alal ju neex yàlla may doon tànkam yi muy doxee du jéegu mukk ab jéego di jëm lu dul place yi nga xam ne ngërëmal yàlla ma nga fa su ma ñaanee ma maye ko su xettali koo ca man danaa ko xettali ñii ñooy awliyaullah yal na yàlla boole ñu ci waaye borom mu ne walakin aksaruhum la yaalamuun li ëpp ci nit ñi xamuñu li ëpp ci nit ñi dañoo jàpp ne walu yi moom caam rek nga war a sant am ñoo xam ne jàpp ne walu yi saar rek la war a sant ñee jàpp walu yi géy la war a sant kër caam nga bokk xale bi doogu judd ak am 90 ñëpp a yem na naan sàngara na am 50 femmes walu yi la nañ su mbaxane yeeg dàll yi raam ci kanamam walu yi mbokk la aksar naas la yaalamuun mbokk wali yu dee su ko doon ci famille wali yu dee su ko doon ci dëkk ba nga juddoo ñu juddoo kaaba ak ñu juddoo pologne ñoo yem ci yàlla ñay nekk bani hashim ak ña nga xam ne ñoo nekk bani firawna ñoo yem ci yàlla képp koo xamee ne nii weddi nga yàlla bokkaale nga yàlla yàlla soril na la waaye képp koo xam ne ngëm nga yàlla gëm gu sell bo yàlla boole na la min awliyaa walakin aksaruhum la yaalamuun li ëpp ci naan xamuñu